ñun bu ñu yuuxul bu ñu jooyul nit ñi aussi yéen peut-être du ngeen ñu dégg. non non non ah kay ñu ngi leen di dégg bu baax sax. peut-être mais il faut ñuy wax pour nit ñi di ñu gën a dégg. mais c'est vrai loolu baax na il faut ngeen wax il faut ngeen wax mais xam nga loolu lépp lu ko indi parce que entre le vote d'une loi. Mhm. et l'application et l'application. ay montagne moo dox ci diggante bi. tout à fait yow nag en tant que état ak gouvernement booy proposer war ngaa xalaat bu baax parce que man li ma jàpp mooy bi ñuy wotee loi. si location bi populisme la woon rek. mais bon mais waaw parce que fan ngay jëlee moyens yi pour appliquer ko. parce que président dox na ba yàgg mu xam ni affaire bi doxul non mu ñëwaat. mu ñëwaat mu ñëwaat ci. ba léegi ñu ngi ci loolu. donc dama jàpp ni pour combattre location yu chère. Mhm. il faut nga construire ay habitation sociale parce que tey jii nii boo gisee xam nga daanaka ay années soixante seize quatre vingt dëkk boo dem am na quartier bu tudd HLM lu ko fa indi HLM moo daan tabax. Mm. Mm-hmm. ay habitation yoo xam ne nii sociale lay doon mm-hmm. mais boo gisee tey société bu mel ni HLM ak SICAP mel ni dañoo démissionné déggatoo fenn HLM yu bees déggatoo fenn parcellisation yu bees dañuy defar cent pour euh, voilà waaw mais logements même cent mille logements bi keroog bi mu ñëwee à l'Assemblée nationale man dama ko man li ma jàpp mooy ay étrangers waruñu cee dugg parce que Sénégal nag am na ñu mën a tabax kenn warul jël ay yeneen dëkk di leen jox cent mille logements fan la programme boobu mujj ban impact la am kon tey defe naa ni pour combattre mooy nguur gi jëlal boppam ses responsabilités société yi nga xam ne dañ leen créer seen vocation di loolu ñu commencé waat tabax. mais yéen ñi nga xamante ne yéen a nekk ay député loolu tamit war ngeen ci mën taxaw parce que am na benn coow maa ngi ko doon wax sànq ci revue de presse bi euh, affaire ASER ASER bi nga xamante ne wala ñu jël benn marché. apparemment jox ko benn société boo xamante ni euh, à l'étranger la nekk alors que am na beneen société boo xamante ni fii Sénégal la nekk loolu aussi tamit c'est un problème. waaw oui mais la préférence locale ñun dañ ko dañ ko wax fu nekk maanaam fexe ba suñu société yi di liggéey. tant que technique conditions techniques sont réunies. Mm-hmm. lépp lu ñuy liggéey Sénégal. tant que les conditions techniques sont réunies bu fekkente ni appel d'orme bi sur le plan international obligé wuñu la nga dugal ci ay étranger man li ma jàpp mooy waa Sénégal ñoo ko war a defar. Mm-hmm. ASER nag man coow li bari na mais xaw ma gisuma document wax dëgg yàlla document bi xaw ma ko nag carrément xaw ma xaw ma xaw ma naka la demee waaye man daal li ma jàpp hmm. ak ñun li ñu jàpp mooy lépp lu sénégalais mën a defar dañ koo war a jox sénégalais ndaxte loolu mooy njariñul réew mi parce que loolu mooy màggal suñu secteur privé te nag vocation état du da ngay créer ay emploi hmm. ci ay euh, nu mu tuddati ay ASP ak ay xaw ma. yeneen xayu ndaw yeeg yooyu. mais il faut créer la condition les conditions avec le secteur privé. bu ko defee ñoom bu ko defee ñoom ñu mën a am ay liggéey di ko jox ndaw ñi.